madame la ministre de la femme Ndeye Saly Diop Dieng ñëwoon fi nga xamante ni moom mooy Kër Massar ak Guédiawaye Wakhinam Nimzatt fas yéene euh, jàmmarloo ñi nga xamante ni moom mooy jigéenu euh, banlieue bi jox leen li nga xamante ni mooy ay financement ay cantines yi nga xamante ni da koo chargé ay marchandis euh, ba mu fees dell nekk si valeur bu cinq cent mille nañu taataan li nga xamante ni mooy madame la ministre. taxi ngeen jàppaleen ba vraiment ba taxaw mu nekk ay projet durable parce que loolu moo ci ëpp solo interpellé aussi les bàjjanu gox wax nañ ko léegi bàjjanu gox yi lu am solo ngeen war a jouer rôle boobu parce que yéen yéen jàppale jigéen ñi à la base jàppale boobu nag du rek santé kese dañu war jàppale économiquement pour ñu mën a parce que jigéen nag bu leen boppam nag yaakaar naa lu bari dina faju si parce que santé pour mu accès au service il faut nga am xaalis soo bëgg sa doom école il faut nga am loo ko yóbbu école soo bëggee lekk il faut am dara donc nit li ëpp solo ci moom fi mu nekk nii mu autonomisation économique am mu mën boppam demal boppam ba nga xam ne lépp loo xam ne famille mën soxla la nga interpellé ñaan kenn ñu interpellé bàjjen doo xam ne pour jàpp ci liggéey boobu baax a baax interpellé nañ ñëpp nag tout la communauté la ñu interpellé en ce moment les chefs religieux les associations ASC xale yu góor yi ñëpp ci lañ bokk ci liggéey bi parce que am nga loo ci war a ma indi projet bi bu doxee dana générer emploi dinañ jël góor dinañ jël jigéen pour jàpp ci projet bi te loolu nag lu am solo la boo yàqee projet bi de projet boo ama ama solo la ci ci quartier bi la parce que ñëpp boo gën a si bu gën def feneen gën ci gën a sali le ko la soo bëgg yéen soo bëgg yéen sànqal bul dem jëndi feneen gën a sali sa ko dëkk xale yi bëgg a caakri dama gën a sali caakri dañ koy jàppale projet boobu durable taxaw dëgër na mu war am may ko fii dina yokk ba yeneen kiosque yu bari xajaat fi te cela ñu partager li ñu am solidarité pour jàppalante ñu mën a initier de mais tax mu dox yéen a koy dox kon ñu ngi leen di remercier wax di leen sant di leen gërëm di remercier encore Souleymane personnellement man maa jàpp sa bopp sa projet bopp man man maa jël sa def la man man sa marraine projet. dama ciy jàpp. ñëw nañ ñu dem fu classé laa leen yóbbu. ngeen tëdd ba ba set. sangu ba set nelaw ba doyal ma fekk leen fa daa am lu ma leen bëgg a jox ma ne ko ah du yow dong nga fi jaaroon de te lu mel ni booy seet xam na ko mu ne ma bokkul xool ma bu baax nga xamee yow sama turandoo la li mu wax léegi yàgg na koo wax yàgg naa wax loolu sama turandoo la day Sali Diop Dieng ma tudd Sali Fall su yàlla defee ba lépp sotti bëgg naa mu ñëwaat fekk ma fii ma ko fi ma ko defalee woon mu defalaat ma ko kenn bañ a manqué ndey Sali mii dama koy ñaanal yàlla ndax dégg ngeen li mu wax ci biir waxam moo ma tippoo waaw waaw mooy sama marañ waaye ma ne kooku sas na ma ay yal na nu yàlla may tëgg ak topp ba du ma gis mu ko dirus wala ku bokkoon naan ko yow du kii nga dimbale ko yàlla bu ma am càdduna kontaan naa trop trop trop trop ma jàppalee la yàlla jàppalee noonu léegi nag mbokk yi ñu Kër Massar 54 laa nekk man maa tudd Mariama Ndiaye waaw di ko gërëm di ko sant mat nañu yaay fi ñu yaay war a taxawu rek taxaw nañ fa ñu benn yoon ndax moom fuñ ko fëggee mu ubbi ñu xeebul kenn xeebul xale xeebul mag fuñ ko taxawalee otom bi fuñ ko gisee daw la nga am ko rek mu taxaw xam ne moom mii jigéen la te xam ne li jigéen yi di dund ci turu bàjjenu gox yëpp nag di wax ni li nga xamante ni tey madame la ministre Ndeye Saly Diop def na ko la mu ci yaakaar yal na ci am lu sut njort ko joxit ñin ci yaakaar yal nañu am lu sut seen njort parce que dafa def lu rëy ndax fekk nit ci tolof-tolof fekk nit ci jafe-jafe nga yëkkati ko fa ni ko jógal kaay kaay ma may la kaay ma dimbali la may nit jën wan ko nu muy nappe moo ndax soo ko mayee jën su ko lekkee mu jeex waaye soo ko wanee nu muy nappe su ëllëgee dana xam soxlaa jën dana xam ne muy def ko kon li nga defal ñii tey ñun ñëpp nga ko defal jigéen ñëpp nga sagal jigéen ñëpp nga siggil du ñoom dong nga ko defal defal nga ko kulu kuy jigéen defal nga ko kulu kuy jaboot ndax tey fa mu toogoon am na lu ko fa tegoon waaye tey la mu fa tegoon loolu nga sentir ci sa xol ba tey nga defal leen lu mel nii la nga yëg ci sa xol am nga xol xam nga ni tey yaay nga bàjjen nga tanta nga lépp nga nga ni njaboot ñëpp tey sama njaboot lañu man day sali rus naa man en tant que président de la république teg ma fi ma teg may seetaan jigéen muy souffrir may seetaan jigéen mi toog ci mbedd mi may seetaan jigéen mi jàq ka jaaxle. ñu koy sant bu baax a baax a baax nax ndaxte ku fekk ndaw bu mel ni man mënoon naa dem defi ci leneen mënoon na maa bàyyi si mbedd mi may dem defi leneen wala may dem waxi leneen waaye mu ñoddi ma teg ma si wetam defal ma indil ma teraanga kooku aw ma fayam ma koy sant bu baax a baax di ko gërëm di gërëm mu le maire mi nga xamante ne moom moo si jàpp dégg nga. xamante ne ba ko taataa Ndeye Saly Dieng waxee loolu. tegu si baat ñu dem fa mu recevoir ñu mu woo ñu ñu ñëw fa. mu woo ñu ñëw fa mu recevoir ñu wax ñu boppam xamal ne moom tamit dina si bu baax a na ci ñun torop ndax ki am tuuti di la jox bu amee lu bëri du kenn waxatu ko te li nga def nii wax dëgg yàlla lii la jigéen ñi soxla te lii la jigéen ñi laaj ndax jigéen ñi fi mu ne nii kenn ku ci nekk yaa ngi taxaw soxla liggéey bëgg liggéey ngay ñëw au secours des femmes te lii la. man ba ma ko yëgee ba ma ko ba ma jotee nouvelle bi dama kontaan dama am mbégte parce que ñu ngi liggéey auprès de auprès du maire monsieur Moustapha Mbeng man en tant que vice présidente auprès de Oulimata Ndoye man maa ngi gérer fii cinq groupement maa ngi fi yore GIE maa ngi fi yore réseau réseau des femmes Oumy Ndiaye xam na ma bu baax réseau des femmes chaque le 4 damay def CAF avec les femmes donc ci kaw loolu te loolu yëpp kii moo ñu dooleel te bu ñu dooleelee yow la dooleel te yow boo ñu. gis ngeen yi nga xamante ni jigéen ñi daal dinañ koy tekk si ki nga xamante ni moom mooy madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng jigéen ñi kontaan loolu di ko tagg fu nekk ndax financement bi nga xamante ni daal dina koy def si ñoom amat nañ mbégte contentement yéen ñi nga xamante ngeen safoo di seetaan seen seen bii di Actubuzz di leen wax ngeen abone ba beneen yoon incha allah.